suñu diggante waaye nag affaire gouvernement affaire gouvernement la xale yi ñoo gën a xam lu ñuy def parce que xale yi bu nekkee xamuñ seen ëllëg naka lay mel ndax ñi nga xam ne ñoo ŋànk réew mi ñu ngi yàq bu digg bëccëg dañu yàq aveniru xale yi xale yi li ñuy def xam nañ ko de dañ ko bokk ay mag yoo xam ne nag ñoom jóg nañ fippu ni lii dafa war a arrêté mais xale yi ñoo gën a xam lu ñuy def parce que dofuñu duñu ay ay parental monsieur jërëjëf euh, maa ngi méttiloo évidemment euh, Kër Mbaye Jacques euh, bi ñu bi ñu dal ci Tëngéej suñu xarit la suñu mag la waaye yaakaar naa ni mu ko waxee loolu mooy li motiver action boobu parce que lépp luy symboliser tey ku jege chef de l'État wala bokk si moom évidemment cible nga parce que dañuy jàpp ne ci nootkat yi nga bokk loolu moo waral certainement ñu romb fa yeneen kër yi dem dal këram en tout état de cause je pense que fitna baax